jaajëfal alxaaji sëñ Mbàkke si la mu nekkoon ci jataay bi almisbaax ñaanal ko tawfiix suturaak ci ràng ak poche yi def dara tabaarakallaahu démb bi njëkkati jataay bi ñun ñëpp d'accord nañ ci euh, nanu nanu jóge ci nanu jóge ci réunion bi ndaw ñi ne nañ liñ fi diggee dañu bëgg ñu def benn seminaire ah aca nangul nañ leen ko démb ba ndaw ñi waaj nañu ndaw ñi waaj nañu bi ko président yëgee yàlla na ko yàlla yokk wér <laughs> président de république bi mu ko yëgee daf na nu kaay leen ngeen nu dem jam ñaajo am nañ fa centre boo xam ne bii président Abdou Diouf lañ ko tuddee ndaw ñëpp xanaa xeej nañ fa te am nañ fay barabu fanaanukaay ak yu ni demee seetetet mbokk yi <laughs> kon jam ñaaju lañ jëm maag ndaw ñi waaw waaw jam ñaaju lañ la ñu nekk lax laay wax maag ndaw ñi waaw kaar yaa ngi nii di ñëw di wàcc am na ci kaar yoo xam ne Kaolack la ñu jóge ñii cil ma xam mbaakul ñi Tambacounda macha allah waaw ndaw ñi ñu ngi nii di ñëw <laughs> ñi ñi ngi wàcc si ndànk-ndànk waaw wala boog ba a baax am na ñu fanaan si biig am nañu fanaan ci biig tabarakallahu kon nun ñëpp dañu fas yéene nag def benn séminaire séminaire bi nag bés bu njëkk bi bésu ubbi la xëy na bu nu dellu see daal di présenté atelier yi parce que atelier itam nar naa bari atelier yi nar naa bëri si na fi sax professeur ji bi jaxate vraiment waaw mu nga ne <laughs> di wàcc ci otoom waaw professeur Djibi Diakhaté maa ngi ko séen na la mi wàcc ci otom professeur euh, merci waaw séminaire bi mbokk yi mbooleem ñi ko war a fekk te bëgg ko fekk ñu bari aksi nañu waaw nun nag comme dañuy sàmmanteeg waxtu bëggunoo xaar ba dix heures nuy tàmbali dañuy tardé déedéet séminaire bi day teel a tàmbali waaw ndax kuy sàmmanteeg waxtu di dund ci waxtu di jàngale waxtu danga war a sàmmoon sàmmoonteeg waxtu bu ñëpp ñëwee nga tàmbali bu ñëpp ñëwuti waxtu bi jotee nga tàmbali te waxoon nañ leen séminaire bi neuf heures lay tàmbali <laughs> waaw kon bu neuf heures jotee rek ku ñëw baax na ku ñëwut baax na dañu daal tàmbali délégation yi ñëw nañu ak ñi nga xam ne dañ leen a yebal ñu jóge ci ministères yi ñenn ñu jóge ci organe de presse yi waaw ñenn jóge ci télévision yi ñoom seen yooyu ñëpp ñëw nañu tabarkàlla waaye daal <laughs> mbokk yi Euh, yàlla baax ñu ñu ubbi waxtaan wi ci séminaire bi mooy lan ci ndaw ñi al islaamu manhajun yi loolu mooy mooy lii ubbi séminaire bi waaw ndeysaan sa siri xaali ca Thiès xam na ci dara kon loolu mooy ubbite gi dugaguñ ci atelier yi ñoo ngi ci salle bi salle bi ñu tuddee Abdou Diouf salle bu mag la écran yaa ngi nii am ndeysaan ak micro yi nu war a waxtaan ak ndaw ñi nag ci al islaamu manhajun taxyiri ah waaw waaw ndax islaam manhajun taxyiri taxyiri mooy lan dafa am ci pénc bi li ñuy wax changement mais changement wu gaar gaar la luy gaar gaar mooy nit ku nogay sax lay jël gaar mooy nogay mu yëre yu xottiku robb moo ko jëndaloon daaw mu jël puso <laughs> la xottiku mu di ko jéem a ñaw loolu mooy gaar gis nga ci àdduna dafa am ay changement yoo xam ne loolu la léeg-léeg ci péncum politique nga dégg ci changement yoo xam ne du changement déedéet gaaraat la mu jël beneen bi exemple travaux publics léeg-léeg ci tali yi mu am tëli boo xam ne dañ koy xolli sànni ko fële tëli ko ñu dem boobu changement la waaye am tëli yoo xam ne dañ koy dabba daaxee dabba daaxee mooy feppum pax nga sotti ca gravaay sotti ca tuuti nangam goudron ko daal di koy tëral daal di koy maasale maasale boo fa jaaree oto du maase fokk sa oto bi ne kërëng kërëng lu tax <laughs> dañ koo gaar changement yooyu l'islam bëggu ko waaw dabb daaxe non l'islam bëggul ay changement dabb daaxe ma wax la ko tey bëggul changement dabb daaxee déedéet changement piir la bëgg mooy day dajjati li fi nekk def fi def fi leneen loolu mooy lan mooy changement yooyu xale yi yéen ñu ñëw ci séminaire bi waa leen góor changement yooyu du du nan jóg dugg ci dëkk bi tudd dëkk bi l'islam non du nan jóg jël constitution bi daan ne constitution islamique déedéet du loolu changement yooyu mooy intérieurement man mii di wax ak yéen ñii yéen ñii déglu ak yéen ñi toog saal bi yéen ñëpp kenn ku ci nekk mooy yëg ne man à partir d'aujourd'hui changement bii kii di wax nii moom la bëgg a def noo koy defee mu ne man ci sama bopp maay changé dootuma jël yëfi jàmbur dootuma xas nit dootuma jëw nit dootuma lekk lu ma liwut dootuma tardé sama liggéey dootuma këpp kees waaw loolu mooy changement yi nga xam ne du daba daaxee mais changement pur la waaw ndeysaan changement pur seet tët tët alxuraan daa wax lu am solo lan la wax wa qaatiluhum xatta laa takuna fitna wa yakuna diinu kulluhu lillah fa in intahaw fa inna allaha bima taamaluuna basir yàlla nee na ñuy ñuy def fitna ci penc mi na ngeen taxaw ci seen kanam waaw na ngeen taxaw ci seen kanam jàpp ci seen loxo ba fitna dootu am ci pénc bi xataa na fitna ba fitna dootu fi am yéen ñi ci salle bi ñëw ci séminaire bi ak man mii di wax ci ñun la yàlla jëmale laay ji wa xaatiluhum xataa laa takku na fitna yàlla nee na ñii def fitna yéen leen gën a bari ah waaw ñii def fitna ñi deful fitna leen ëpp mu ne kon bu leen leen ragal jàpp leen ci loxo ñii def fitna ba fitna jeex fi waaw su ko defee wa yakunu diinu kulluhu laa jàmm jëpp law yàlla moom yilif nun ñëpp mu ne nag su fekkee bàyyi nañ fitna ji nag ñu xam ne li ngeen def xam naa ko may ma xam ne li ngeen def xam naa ko kon nag yàlla nee na nan fi jële fitna loolu nag mooy changement yi dëgg nag mooy lan penc mi ñu jële fi fitna rey gi jeex fi tàkk ku ci ne ñun xam li ko fi indi mu ne ca ba bu jóg jotee buñ na ko jógal du waxtee maaxaar ba suba mbokk yi gis nga changement yooyu moom la sallallahu alayhi wa taxawoon ca Quraysh waa Quraysh ñëpp taxaw ne ko bëgg bëgg nañ changement waaye xorey si changement bi ñu bëggoon mooy changement dabb daaxe changement dabb daaxe bu dalee politicien da ngay jékki-jékki rek yëg ne li fi jóge woon ak li fi nekk daanaka benn la loolu mooy dabb daaxe waaye changement pire mooy jële fi li fi nekkoon teg fi leneen lu bokkut ak li fi nekk waaw tabarkalla <laughs> kon dabb daaxe changement dabb daaxe déedéet waaw changement dëbb daaxi amut tubarkàlla mu ngoog kon changement dëbb daaxe amut baaxut waaw mu ngoog ñu ngi may yëgal ne Yaquba Jatara agsi na ci jataay bi <laughs> kon nee leen ko ñu ngi koy dalal <laughs> ñu ngi koy dalal macha allah politiciens yi daal gaañaa ngi ñëw daal ndànk-ndànk kon ñu ngi koy dalal changement yooyu <laughs> mbokk yi la waa Xuraysh si bëggoon ci bi maanaam changement dabb daaxe changement dabb maanaam li fi nekk nga ñab-ñabal ko te li fi nekkoon rek a fi nekk loolu lañ bëgg ñu ne ko dañ laa seet si woon xam nañ ne gaa bëgg nga pinc bi changé mu ne waaw ñu proposé ko waxuñ ko nag dañoo bëgg changement dabb daaxe dañ ko proposé loo xam ne dañoo daaneel rek yàlla xam ne changement bii dëbb daaxe la aca lu leen seen tànk ñu ne ko du bëggoon daal comme yow ku baax nga te kilo jur ku baax la te noo bokk lépp te bokk penc mi te bëgg nga ne penc mi da war a changer ñu bëgg nga ànd ak ñun ci li ñuy def suñu amee suñuy feet nga ñëw ba amee say feet nu ñëw waaw suñu jaamoo suñu yàlla yii bant yeeg xërëm yi juróom benn weer ñu ne ko fi ñukk ñëw ñu ñëpp ñu ànd jàmm yàlla juróom benn weer bon ñun daal changement boobu bon defe naa ne doo ko bañ <laughs> loolu lañ ko wax changement bu def naa doo ko bañ te itam changement la vraiment ndax ñun mën nañoo ànd ak yow jaamu yàlla juróom benn weer léegi na nga ñëw jaamu suñu yàlla yi juróom benn weer suñu borom ne ko xul tontu leen xul tontu leen ñu leen yaa ayyul kaafiruun yaa ayyuhal kaafiruun yéen ñu nanguwul changement bi am yéen ñi may proposé changement dabb daaxe laa abudu ma taabudun du leen fekk si ci seen programme boobu mukk man du ma change du ma change changement dabb daaxe mbokk yi séminaire bi lay ubbi maa ngi ci discours ouverture bi waaw waaw maa ngi ci discours ouverture bi tabarkàlla ci kanam xale yi ak lenn ci mag ñi ñu ñu ñu ñu ñu ñu rax ak lenn ci protection yeeg daayira yeeg association yi tudd naa ci sànq ndeysaan eh, Yakhouba Diatara wala antum aabiduna ma abudu te lii ngeen ma wax nii ne juróom weer da ngeen ko ànd man jaamu ko yàlla wu du dëgg wala ana aabidu ma du ma ñëw mukk di jaamuwaat ay bant ginnaaw bañ ci jógee wala antum aabiduna ma abudu waaw lu xew lakum diinukum waliya diin lakum diinukum waliya diin dem leen ak seen diine ma dem ak sama diine maanaam dem leen ak ni ngeen déggee changement te bàyyi ma man tam ma dem ak ni ma déggee sama changement yéen changement dabb daax ngeen bëgg man bëgguma changement dabb daaxe changement dëq ci la fi nekkoon indi leen loolu la bëgg gaa ko ah kon da ngay jaay ñun euh, bras de fer kon dañ ko séq ak yow mu ne dox leen ñu dem ndeysaan allahu akbar sunu borom subhanahu wa ne ko xol seddati na ndeysaan allahu akbar sunu borom ne ko xol seddati na njol màkka maa bég ci yow fali zalika fali zalika loolu la nga leen wax fali zalika changement yooyu nga leen di woo fadu fali zalika fadu changement yu wér yooyu nga xam ne mooy jële fi li fi nekkoon indi leneen mu naa mun ne ko foofu nag nga teg sa baaraam foofu la ak taab boo koy fajal boroom li fekk tëbut laa la goo taab ga waaw bay fallu taal moo ko wax imaam fadilu taal waaw fali saalika fadu ngoog foofu la <laughs> foofu la waaw seen naa sànq ndeysaan le doyen Ablaye Ndiaga Sylla <laughs> waaw mu nga nelli toog moom président bi nag dama ko séen euh, xàmmee ne moo toog ne la Abdoulaye Ndiaga la waaw maa ngi lay nuyu ñëw na ci seminaire bi mbokk yi suñu séminaire bi daal moom xam naa ni ne tabarkalla <laughs> ñi ma gisul nag xam naa peut-être ñooy ëpp ñu ma gis waaye Abdoulaye Ndiaga Sylla moom séen naa ko ma nga ne la toog waaw ginnaaw bi ngeen yégée ne Baye Omar Gueye moom ba ñu tàmbalee ba léegi tabarkalla noonu moo ma ko ànd <laughs> waaw ngeen baal ma ci misaal yi waaye dëgg la ndeysaan fali salik fadu ne ko wastaqim kama ni ma la digalee nga jub mun naa mun a ko teg ko foofu rek dana métti nag dana metti de mun naa mun a ko ay teg ko foofu rek bu la kenn woo ci changement dabb daaxee waaw dabb daaxee euh, nogay <laughs> nogay ak leketam keroog ba muy sëyi la ko ko ndeysaan yaayam bàjjan yaa ma joxoon yàlla na ko yàlla yërëm bàjjan yaa ma moo ko joxoon leket ga euh, doom ja di dem marché leket ga daanu donc toj na waaye nogay da ko dabb daaxe leket ga ngi ci kër ga ba démb waaw ba démb ndax ay at ngi nii bu 4 avril jotee ma jaar kër nogay waaw ay at ngi nii ndeysaan waaye gis naa leket ga moo da koo dabb daaxe maanaam da koo ñaw <laughs> da koo ñëw këll ba mu yóbboo nit këll ba këll ba toj na waaye da koo dabb daax daf ko yóbbu ca ci tëgg ba mu defal mu mu mu mu ŋànkal ko ko ŋànk lañ ko tuddee ndabi na ko yi bëri naa yem foofu ndax léegi tey mu ne ma bàyyil sama ndab yi waaye ndabi nogo yi noonu ndabi nogo yi mel dabb daaxe booba dañu bañ ci pénc am pénc kenn du ko dabb daaxe dañ koy changé moo xam politique la moo xam économie moo xam social moo xam environnemental dabb daaxe baaxul waaw dabb daaxe baaxul dabb daaxe léeg-léeg xalaati tubaab bi la ñuy indi solutionné ko suñuy problème loolu tam boobu tam baaxul déedéet al xulul mustawrid mustawrada loolu baaxul waaw problème a ngi nii daal France ni la ko faje woon waaw mais ñun mbokku ñoo France ñu ngi koy faje janaxi France bokkut ak janaxi dakaar wala janaxi janaxi Sénégal yonent bi sunu borom ne ko fale zaalika noonu la de léegi leen wax lakum diinukum waliya diin mu ne am ah, na ko foofu la fadu wooxal nit ñi nag ku la ci nangoo fekk si fekk la ci ku ci nanguutu fekk na nga xam fa mu jëm wastaqim kama umirt jubal ni ma la ko sant rek dina métti nag waaye sayira ndeysaan wala tattabi ahwaahum bu leen fekk si de bu leen topp seen bànneex de jaamu ma juróom-benni weer dem jaamu ko juróom-benni weer mel ni maak seen xërëm yi ñoo bokk adduna si di ko séddoo mu ne am ah, na ko bu ko nangu mukk li nga nekk dëgg waxul amantu billah defal déclaration neel amantu bi ngeen baal ma amantu bi ma anzalallah min kitaabin wa umirtu an aadila baynakum wallaahu rabbuna waaw wa rabbukum lana amaluna walakum amalukum la xujjata baynana wa baynakum allahu yajmau baynana wa ilayhi lmasir cttt loolu la leen tontu ma indil ko gars yi ci séminaire bi mu nekk sama discours d'ouverture eh, tabarkalla mu ngoog waaye mbokk yi séminariste yi ni lislaam bindoo moom ci boppam moo bëgg changement pur hmm? te yaakaar ko ci ndaw ñii nga xam ne ñoo ñëw ci séminaire bi te buñ ko ubbee ba noppi mag ñi ñibbi bàyyi nu nu ndax séminaire bu ñu ubbee séminaire si ñoo fi des ndax euh, ñi ñi ñi wàllu si woon dem ñibbi waaw ndeysaan yi nga xam ne moo na ci pénc mi di melax ak a roy roy bu ndaw ñi teg seen bët foofu déedéet nañ ko teg feneen fu bokkut ak foofu te ngeen xam ne te ngeen xam ne euh, changement dafa war a am bu dee ci bu lislaam bi ma wax leen ne du du bu ñu dabb daaxe moo tax incha allah bu gan ñi yewi ko ba ma jeexal ci sama discours dañu war a tàmbali kon séminaire bi def ko ci ñeenti atelier d'abord ñeenti atelier yooyu maa ngi présenté xale yi euh, séminaire bi <laughs> ñeenti ñeenti atelier yooyu benn bi mi ngi jëm ci kuliyatu taxyir waaw changement gi diine ji bëgg ci nun changement la goo xam ne lépp la làmb atelier boobu dana am ci mbooloo yi ñoo xam ne ñoo koy séq luñ ca tënk yët nu ko mu am beneen atelier mooy aqaidiyatu taxyir changement yooyu day am lu ñu gëm gëm ko wékk ko ca moom tam dina am ñu ko séq bu ñetteel bi ci atelier yi mooy insaniyatu taxyir waaw li ñuy def day nite yooyu daal ci tàmbali bi ci lañu war a ànd euh, nun ñi nga xam ne ñoo nekk ci séminaire bi mbokk yi benn atelier bi bi gaañ demee ba tënk ko te mooy kuleetu taxyir dañoo indil ne liñ ci tënke ci atelier boobu bi rapporteur bi di liir rapport am daf ñu wan ne changement yi du dañuy dañuy dindi fii bàyyi fii xam nga ci pénc mi léeg-léeg ngis fi ay xale yu jàmbaare mais benn côté la ñuy changer bàyyi bi ci des changement bi bëgguñ ci loolu luy loolu léeg-léeg nga gis xale yoo xam ne jàmbaar lañu lool waaye kàddu yépp mooy nañ defar pas-pas yi pas-pas yi boo baaxul am na ñoo xam ne foofu la ñuy nekk ci changement yi am ñoo xam ne économie la ñuy wax l'islam li ko dal du daral dul économie bi moo doxul nañ ko jéem a doxal waaw am ñoo xam ne yan suluk muy wàllu jikko xoolal ñett ñooñu buñ boole woon lu ñuy def def ko benn tomb kon ki ki feebar wér waaw waaye bu fekkee ñee dañ koy faj ci ne pas-pasam moo baaxut ñu ñëw ne social bi la ñu ñëw ne économie bi la ñu ñëw ne euh, moral bi la kenn ku ci nekk jàpp ne lenn la mën nga caa nekk ba génn àdduna loolu rekk ca ngay nekk waaye changement bi du loolu kulli la am mooy lan côté yépp lay jël waaw mu ngoog al ijtimaaiya mu wàllu social daf cay bokk al insaaniya muy nite la ca nite daf cay bokk al iqtisaadiya muy économie daf cay bokk al siyaasiya muy politique daf cay bokk al aqaaidiya muy pas-pas daf cay bokk gis nga yii bu kenn ku nekk beroo ne ci lii lay liggéey kële beroo ne ci lay lay liggéey buñ tasee duñ mën a coordonner la ñuy liggéey waaw am na ci pinc mi ñoo xam dañoo jàpp ne li li li li manqué pinc mooy insaniyatul insani am na ñoo xam loolu lañ jàpp waaw am na ñoo xam loolu lañ jàpp ñu defee ne foofu rek lañ war a liggéey waaw am ñoo xam ne dañu ne al ijtimaai mooy wàllu social bokk liñ am ñu ne foofu moo doxul bokk liñ am ña ngay jéem a jàngale ak jéem a yaraatee ko former waaye ñuy jàngal ak yar ak for mooy forme mooy fexe bañ bokk li ñu am économie itam noonu économie itam politique nag moom jàpp nañ ne benn groupe ñoo ko war di def ñu tudd ay politiciens peut-être wala ay politologue wala nu ñu ko tuddee baax na waaw léegi su boobaa yooyu ñu defee na nag ñu daara war warati politique ab ustaas warati politique ilimaan warati politique notable warta politique ba mu yàgg léegi politique moomu nga xam ne ci ci liñ war a soppi ci pénc mi la bokk waaw léeg-léeg ñu dégg suñu mbokk Ousmane Sonko <laughs> yàlla na ko yàlla yokk wér xam naa dana ñëw ci séminaire bi peut-être mu ne euh, régime yi nun la koy waxee wala waa système bi laa bëgg wax système yi moom lañu <laughs> mu am problème waaye tamit pénc mi changement yooyu ñu bëgg ñu jàpp ne ku mel nangam du politique ah waaw na Abdul Wadood Mbàkke yàlla na ko yàlla yokk wér nee na bu nit ñëwoon ne la politique baaxul dafa salte dañ ciy wax nit lu baaxul ba daaneel nee na la nga ko war njëkk a wax mooy nañ ànd bàyyi ko nañ ànd bàyyi ko waaye soo ko waxee nañ ànd bàyyi ko def naan la ñaanal ma ma def ko waaw li nga koy ñaanal mu def ko ñaanal ko sa bopp ngeen ànd def ko waaw sëñ Abdul Wadud yàlla ko yàlla yokk wér tabaarkalla tomb yu am solo la ciy waxtaane mbokk yi séminaire la par semaine lay am dañ doon dañ doon def discours de d'ouverture bu séminaire bi seminaire si tàmbali nañu ba jot nañoo samp ñeenti atelier atelier bu njëkk bi indi nañ seen seen rapport rapporteur bi mu ngi koy liir wala jox na ma ko ma leen koy jottali teg leen seen baaram foofu bu nu dégloo waxtaanu àjjuma dégluwu samedi dégluwu dimaas ndax ñoom ñett benn yoon lañ ko am ci weer wi ñu del siwaat nag ci jataay bi incha allah ci suñu séminaire bii suñu mbokk yi xëy ci xibaar yi ñu ngi nii taxaw yoon seen i këyit bëgg la na firiñ fànjal xibaar ta firiñ fànjaloon ko ci wolof ñaan leen yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bii ak suñu sponsor mii yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir ci def ci suñuy poste dara wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu